الضالين صب اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سمه قبل أمسى إلى ما شاء الله إنه يحلم الجهر من يخفى ويسر لليسرى وذكر إن نفعت ذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الذي يصلى نار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى أذكر اسم ربه فصلى ترجعون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى وفي إبراهيم وموسى الله أكبر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 أصلاها والعيد يصلاها والسماء وما بناها والأرض وما طاها ونفس وما سواها ألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد قام من دساها كذب سمون بتقواها إذ انباز أسقاها فقال رسول الله ناقة الله وصبيها فكذبوها أرها ألم دمارهم ربهم بذنبه وسواها ألا يخاف الله الله أكبر الله أكبر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 الكبرى بإتمام إلى صوم وقبول العبادات لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم مخلق بين السماء والأرض لا يرتفق إلا بزكاة الفطر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسلة إن خطبتنا اليوم تدور القول الزحد والعميته إن الزهد هو كما قال صلى الله عليه وسلم زهادة في دنيا ليست بتحريم القلال ولا بإدارة المال ولكن زهادة أن تكون بما في يد الله أو شق منك مما في يدك ولقد وردت آيات كثيرة يقلل من الشعن دنيا كقوله تبارك وتعالى يا أيها الناس إن وحد الله حق ولا تقرنكم آيات الدنيا ولا يقرنكم بالله الحرور جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلاني على عمل إذا عملته عببني الله وعببني الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulilahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila واستقلوا يا عباد الله بالعداف أساسي الذي خلقنا من أجله وهو العبادات واستغفروا ربكم وصلوا لعزه زهده وتقواه اللهم تقبل صيامنا وخيامنا وصلاتنا وغن علينا من بركات هذا يوم وحد أمثالنا علينا ونحن نتمتهم بالأمن بالإيمان والعين والعافية subhaana rabbi allahuma salli ala sayidina muhammadin alfaatihi lima ughliq walxaatimi lima sabaqa naasi alxaq bilxaq walaadi ila siraatika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari azim subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamu ala almursaliin walhamdulilahi rabbil aalamiin allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabiira walhamdulilahi kasiira wa subhaana allahi bukratan wa asiila allahu akbar maana tahaa bi zikrihi wa taxzimihi naatiqun allahu akbar maa sadaxa fi qasdihi wa amalihi saadiqun allahu akbar maa uhimata sawaarila diin allahu akbar maa rafaxata bi nasrihi axlaamu lmuminin allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulilahi kasira wa subhaanallahi bukratan wasila ayuha nnaas ألا تحبون ألا يحبكم خالقكم وهو مولاكم يقول أبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم أزهد في الدنيا يحبك الله وأزهد في ما عند الناس يحبك الناس ألم ترى إلى زقد نبيكم نام النبي على حسير فقام وقد أشرع في جنبه في جنبه شريفه فقال له صحابة لو تغزنا لك وطاعوا طاعا wa qaala maali waldunia ma ana fi dunia ila karakibin istaxzalla taxta shajara summa raahu wa tarakaha ibadallah ibadallah ibadallah sibaaxa sibaaxa ila maxfirati min rabbikum wa jannatin uxiddat lilmuttaqin washkuru llaha yashkurukum washkuruhu wala takfur ya allahuma ihfazna واحفظ شبابنا وشيوخنا ونساءنا وابناءنا من كل سوء والبسوهما الفضيلة وسعتها في العقل والجسد إنك ولي ذلك والقادر عليه يا ذا العزة والفضل والإكرام اللهم هب لنا صحة لا تلقنا وعافية لا تغهنا واجعلها خير المعين على طاعتك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 alhamdulilah. ci baatu aleykum nuyoo bi gën a tedd mooy ñaanal leen jàmm kenn ku ci nekk xamal ni mbégte mu rëy tukkee na ci suñu xol ut si la di leen ziyaara ziyaar bi gën a mag waaye it di leen ñaan ngeen bal ñu àq ci tàmbali bi ak ci jeexatal bi ndax kat àq siiw na sew na te mën a jur lor waaye nag ñu ngi leen di baal ci suñu biir xol kenn ku ci nekk ci yéen ñu ngi leen di ndokkeel nag ci bés bu mag bii di korite nga xam ni moo weer wu barkeel bi bari njariñ lool di weeru koor di weeru yërmande njéggal ak njot ci safara te ginnaaw weer wi ñu war cee jànge ñu war ko cee jànge yiiw ak gëm yàlla ñu ngi sant yàlla mi ñu xéewale dund wér ak wérle ak wërsëg boo xam ni moom lañ dogee ci jàmm moom subhaanahu wa mi ko waral amul benn nattable ni moom rekk lañu war a jàmm képp ku gëm amul ci yow benn sikki sàkka ne moom yàlla amul kenn kuy moom ci tolluwaay ci màggaay ci kattan ci kenn ak lépp loo xam ne ñu ko koy askanale kenn ci ñu mu bind ak ci li mu bind wootewu ko te manul li nga xam moom lay woote kon nag jaamu moom rekk lañ koy defal ci kaw ay santaaneem ak di bàyyi ay tereem moom yàlla subhaanahu wa taala dinañu ko kañ dinañu ko bàkk bàkk gu méngoo ak jëmmam ju tedd ja te du tax nag mu doy waaye it dinañ ko ñaan mu yokk jàmm ak xéewal ci ngën ji mi def mi yàlla subhaanahu wa taala yónni ci mbooleem xeet yi muy sunu roy di sunu soppee di sunu di sunu sang di sunu di jaamu yàlla di soppeem di yonentam muy seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi ñu yónni ngir mu xamal ñu dëgg moom mi ñu yónni ngir ñu dëggu ak teg ñu ci yoonu njub boole ci nag saabaam yi ak njabootam ak képp kuy roy ba bés penc ba tey jii nag nekk bés bu màgg ci islaam di feet te feet war ànd ak mbegte waaye mbegte boo xam ne bi àndul ak puukare waaye àndul ak coono àndul ak xiif àndul ak ñàkk ngir loolu bañ a am nag sant nañu ñu génnee lii di zakatul fitri di muuru koor ngir ñépp am lu ñu dundee te kenn du wëri mbaa di ko yalwaani moom muru koor wàccul góor wàccul jigéen war na mag war na ndaw donte liir la nag képp koo jabootee wala dundam war la yow yaay ki ko koy génneel joxe gi am solo lool ndax waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam asawmu muqallaqun bayna alsamai wal ard laa yartafiqu ila bi zakati fitri yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne koor dañu koy aj du yëkkati ko mukk jóge ci suuf jëm ci asamaan donte lu dul dañoo génne mooru mooru koor yi jeexatulu koor gi moo ñu indi ci sunu xutba tey jii ñu nga xam ni moom lañu bëgg ànd ak yéen fàttalikonte li nga xam ni mooy ak zuxdu di dëddu àdduna kenn ci jullit yi nag umpalewul na yàlla subhaanahu wa taala da ko bind ngir mu jaamu ko moo tax képp ku gëm yàlla gëm islaam mi nga xam ne jaaree na ko ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wóor na la yàlla dara ump ko ci sa nekkin ba ba ngay génn àdduna ak la ca sa ginnaaw dund kon ba nit nekkee ci biiru waajuram ak lu ko jiitu ci la sunu borom subhaanahu wa taala dogal ci moom li nga xam ni moom la dogal ci léppam xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam summa yursalu ilayhi malaku fa yanfaqu fihi ruuhu wa yumar bi arbai la kalimati risqihi wa ajlihi wa amalihi ashaqiyun wa aw sahilun ba ñu bindee sa ruux gi yont bi ne ba ñu bindee sa ruux gi yàlla subhaanahu wa taala yebal na malayka ngir mu bind ñeenti mbir ñeenti mbir yu am solo jëkk nag ngay juddu muy wërsëg sa àpp bi ngay sa du sa li nga xam moom ngay dund jëf yi nga xam ni moom nga war a jëf mu mujjee nag li nga xam ni moom ngay mujjee yowmal xiyaam kon moom borom bi bi mu ñuy sàkk dafa ñoo bind ngir liggéeyee bu ñu war a def ci àdduna mu dogal diir ba nga xam ne ci la liggéey bi di yem moo tax war na jullit bu nekk mu faxas loxoom ci lépp loo xam ne nii da koy dox digganteem ak jaamu boroomam te mu dadu lépp loo xam ne nii dafay yéexal doxam bi nga xam ne moom lay dox ngir am ngërmaande yàlla kàddu gi dafay tolloog ak lii yonent bi sallallahu alayhi wa daan xamal jullit yi fi xawlihi sallallahu alayhi wa sallam alkayisu man daana nafsuhu wa amila lima baxda al mawt yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax saaba yi ne leen nit ki yewu daal mooy ki nga xam ni bëre na ak bakkanam ba daan ko te mooy la ca ginnaaw de loolu moo tax dëddu àdduna jullit bu mu nekkul ci yow doo liggéeyal dara àlaxira mais ki liggéeyalu àlaxira mooy kan ceux qui nient l'existence de Dieu qui pensent croient et théorisent qu'il n'y a aucun lien entre le Tout-Puissant et l'homme, et tom la là qui est de son destin, capable de tout et que Dieu n'en pour rien. xam nga kii dogoon na ak boroomam ndax moom gisul sax nag ni yàlla moo ko bind moom nit la gëm man-manam te mooy amal boppam lépp lu ko soob te yàlla du ci doon dara waa ku mel nii gëmul àtte yàlla ëllëg ba tax muy boyal bakkanam jiiñ ko ci bànneex bu ko amal ak bu ko ñàkkal njëriñ du ragal a def benn ñaawteef nag donte da koy lor bu ko àdduna soofee mu xaru lu bon yëngalu ko yëgalu ko boppam alal nu nekk la koy utee mu nekk euh, lu nekk la koy utee nu nekk la koy amee benn jàngale diine yitteelu ko ab yonent ak dara lay male kii mooy kan kii mooy waa kuré gi ne ñoom ñoo wax ba amal yàlla kon war waruñu ko defal dara waaye moom moo leen war a defal lépp waaye dañoo fàtte fi ñu taxaw ba amal yàlla sama samawati wal ard wa ma baynahuma in kuntum muqinin kii bind suuf ak ak asamaan ak ci diggal li ci diggante bi ci ñaari béréb yooyu di xéewalu yàlla ci doomu aadama waaye yàlla da caa yemul ndax li mu lay wax mënoo tee teg baat te boo ko déglu xam ko te doo gis ku wax lu mel wala ku def li mu mel qaala allahu tabaraka wa taala allazi jaala lakum al arda firashan wassamaa binaan wa anzala min alsamaai maan fa araja bihi min alsamarati risqan lakum yàlla subhanahu wa taala ne moom mooy ki def suuf nekk seen laytaay asamaan di seen teg mu wàccee leen ci ndox moo fu mu fa jóge ngeen ngeen am ci ay meññeent yoo xam ne moo jóge ci suuf ngeen mu wërsëga leen ko te yii yépp nag jëkk fi nit gàncax jëkk fi nit ngelaw dëkk fi nit ndox jëkk fi nit te yooyu bu amul woon doo taxaw bay am bay amal kenn kon dundu loo doo ko am bay amal kenn waaye daal li war daal mooy wala tajaalu lillaahi andaadan wa antum taxlamuun bu leen sàkkal yàlla moroom mbaa boroom te xam xam bu biir ne loolu jaaduwul kon jullit mooy ci nangu kàttanu yàlla ci lépp nangu sañ-sañu yàlla nangu dogalam nangu ko topp ànd ko ragal ko te nangu gi kat yàgg na lool xëy na dafa sore ba ñu fàtte xaala allahu tabaraka wa taala isa aasa rabbuka min bani adam min zuhurihim wa ashrauhum ala anfusihim alastu bi rabbikum xaalu balla shahidna an taqulu yowma alqiyamati inna kunna an haasi afilin yonent yàlla subhanahu wa taala ne fàttalikul ba sa boroom génnee ci ndigu doomu aadama yi seen sët yi te mu seedale loon ci ci seen bopp naan leen ndax duma seen boroom ñu ne lan ah kay seede nañu loolu ngir lan ngir rekk nag ngeen bañ a wax ca bésu réglé ba di bésu pénc ba ñun dañoo réere woon lii mu dig lay kon yow yow nit rawatina jullit bi bu réere yàlla ba nga koy umpale bañ bañ koo gëm wala di ko ñàkk topp te nag boo koy boo koy topp bu ko jëndee àdduna ndax dafay jeex moom àdduna yàlla des si nga dem ànd ak say jëf kon ndax duñu laaj lan mooy dëddu àdduna kan moo dëddu àdduna ak kan moo ko dëdduwul waaye lu tax dëdduwu ko lan mooy dëddu àdduna azahadatu fi dunia laysat bi taharimil yi ولا بإضاعة المال ولكن زهادة أن تكون بما في يد الله تعالى aw shaqu minka bi maa fi yadika dëddu àdduna nekkul ci xaraamal lu dagan du caaginu gedd sa alal du toroxal sa bopp du lekk ak naan lu salte ak mbaa di ko dëkkee wala di sol ay sagar ci sa coobare ngir ñu askane la ko waaye li ñu wax dëddu àdduna mooy nga fexe ba li nekk ci loxo nit ñi nga yàlla gënal la ko te nga gëm gën koo wóolu li nga xam ni moo nekk sa loxo wala ci loxo nit ñi kon mbokk yi ndekete li nga xam ni mooy sunu alalu àdduna yii ak xéewalu àdduna yii yàlla teg ci suñu loxo gannaaw ba ñu ci jëlee lañu ciy dundee lañu ñu ci suturloo la nga xam moo ñu jariñ dara desatu fa la ca des eh, war naa jóge war na war nga cee mën a jëndee ngërmande yàlla képp ku dëddu àdduna képp ku dë dund lii nag bokk nga ci ñi dëddu agul àdduna ndax ñi ginnaaw jaamu yàlla wéetal ko kennal yàlla seen lépp da delloo nañ ko ci jaam yàlla yi nga xam ne ñoo ko moom képp ku dudd àdduna yow bàyyi nga xel li ñuy sunu borom subhaanahu wa di mooy tund ko te mooy ñu topp àdduna ba fàtte liggéeyal ëllëg yowmal xiyaam kon yow doomu aadama ndax doo teewlu sa waxi borom ji qaala allahu tabaraka wa taala ya wax nnaas inna waxda wala taxurannakum ayaatu dunia wala yaxurannakum billahi alharuur yàlla ne hee yéen nit ñi naka dige yàlla bii kat du dëggu la moo xam li jëm ci li ñuy dekkal jaam yi la ak fay leen seeni jëf te mooy yóbbu leen aljana mbaa jahannama kon nag bu leen nangu mukk nag dund àdduna bi di leen wor te it bu leen seytaane nax kon kay sunu boroom teel nañoo xamal ni adduna kenn du ko topp fàtte ëllëg bul jënde kon sa teraanga ëllëg ak xoy-xoyu àdduna bii mu mel nii melokaan bii sunu boroom jox àdduna mooy eh, naxekat la mooy àdduna workat la mooy àdduna jàmbukat la ndax moom boo ko jàppee mu bàyyi la boo ko bëggula bàyyi mu bàyyi la boo ko bàyyee mu bàyyi la moom mbiram daal mooy day teqalikoo ak yow ak loo fi mën a am loo fi mën a def loo fi mën a xam ak loo fi mën a nekk te day dogale dee sa diggante ak àllaaxira ci gaaw nag laa taatikumu ilaa baxtatan wala ma fara dee ci mbetteen lay ñëw te mënoo daw bëri ci koo foofu nekk fekk na la fa ayna ma takunu yudrikumul mawt wala kunta fi burujin mushayyada dee jële na nit fu nekk ak ci lu nekk te bu sa waxtu jotee fu mu la fekk ak nu mu la fekkee dina la jël amul xaaral ma dem Paris te ñëw amul xaaral samay doom màgg du xaar ngay tàmbali walla ngay yéexal benn projet amul xaaral ma amal ma am alal amul xaaral mooy tuub wala xaaral may jige samay mbokk mbaa ba ma soppi ni ma mel déedéet fu mu la fekk jëlle ak loo mën a def ci àdduna bi ci mbon bul defe nii nag mukk nag yàlla daf laa fàtte waaye na xam ni dafa lay négatiwu ndax kat sàcc bu raw moom jarul yàq ay nelaw qaala allahu tabaraka wa taala walaw yuaziru llah annaas bi zulmihim ma taraka alayha min daabatin walakin yuaxiruhum ila ajalin musamma fa ida jaa ajaluhum la yastaxiruuna saxaatan wala yastaxdimuun yàlla ne bu ma doon di gaawal di sàdd nit ñi ngir seen tooñeel kon duma fi bàyyi kenn ci kaw suuf waaye dafa leen di yéexee ba ci àpp ba ba dogal ba ba nga xam ne dogal na ko ba noppi kon bu seen àpp jotee du ñu ko weesu mbaa ñu jiitu ko lu mat benn saa nag kon yow ndax doo bàyyi xel dee ba àdduna bii ak ñaawteefam bëgg laa soriloo sa borom li waar daal mooy rafetal booy ut na rafet booy jëf na rafet booy xam na rafet booy am na rafet bul sotti lépp li nga xam am ko man ko nga sottil ko àdduna bi te du am benn jeexital ci ëllëg yowmal xiyaam ndax yow doo xel yàlla mi waral lépp war a jëkk war a mujj ci say mbir xam ne moo lay mujjee li lay mujjee tax na sunu borom subhaanahu wa taala teel xamal lan mooy dëddu àdduna ak luy àllaxira déglul yàlla subhaanahu wa taala wa ma haasi l ayaatu dunia ila lahwun wa wa inna daaral aaxirati la hiya ayawaan law kaanu yaxlamuun yàlla subhaana wa taala ne dëddu àdduna nekkul foo ak yi caaxaan waaye naka alaaxira mooy kër gi am dë mu dund ko sax dàkk nag bàyyi xel bi nga war a bàyyi xel sunu ñaareelu nekkin bii ci alaaxira moo tax nit ñi xam yàlla di tarbiye seen bopp tarbiye seen njaboot xamal leen dëgg xamal leen dëggu dund àdduna bi mooy lan ak ban yoon lañ ci war a ba du lor du ñu lor ci àdduna du ñu lor ëllëg ndax kon doo doo seeti la Luqmaan waxoon doomam ja yaa bunayya inna dunyaa bahrun amiiqun xaraqaa fiihi naasun kasiirun faltakun safinatuka fiiha taqwa allah taala wa li imaanun billahi taala Luqmaan dafa taaj doom ja ne ko yow sama doom gis nga àdduna gi géej gu xóot la nit ñu bari lap nañu ci kon nanga ko na ci yéeg ci gaal goo xam ne gi dalay tax a mucc mu ne ko gaal googu mooy ban mu tontu ko ne ko gaalu ragal yàlla subhanahu wa taala te nag bu ci def mukk ay bagage yoo xam ne dalay tax a diig waaye nanga ko feesal ak ngëm yàlla te nga bàyyi sa bopp ak yàlla amaana boo defee lii da mujj mucc waaye ñun nag bëgg nañoo mucc waaye ku nekk defe nga ne ni mooy jox boppam ba pexe mu nekk ñu ngi ci te lépp di ñaawteef lu yàlla tere te lii bokk na ci lu tax dëdduwuñu àdduna ndax dañoo jël alal jël am-am ak koom-koom remplacer ko par yàlla ba tax noo ko amee baax na ñii ne kon nañu sàcc ñii ne nañu aju kalpe ñii ne nañu njublang ñii ne nañu nax naxe ñii ne nañu fen ñii nag ne nañu toppe ñu jël yi yépp nag def ko yoonu am-am ba noppi gën koo wóolu pexem yàlla te du la taxa a mucc ci coono àdduna mbokk yi gis nga kenn ku nekk ci ñun mu ngi ngeejoo moom ci boppam wala keneen ci njabootam nekk lii ñu tuddee waliyu buñ ko ko tuddee te mu te yéemu ko xaritu yàlla buñ ko ko tuddee te yéemu ko day fekk moom ci boppam muy nekk muy yiw mu nekk ku yiw nekk ci yiw bay yiw euh, gane ko mu ne wàllu yiw ñëw ci moom yiw nag wallu ko ku yiw wallu nag ngay xaritu yàlla waaw loo xam nag ci tëdduwul yiiw yiiwa di nekk ci moom yiiw walluwu ko te dund lu dul ci safaanu mbaax kii moom doo ko mën a tuddee dara lu dul apo yiw moom la góor ga wax boo ko yëgee ak boo ko yëgul ak ndombal tànk boo mën a takk dara joo mën a am alal joo mën a yore xam-xam boo mën a làq bu fekkee yow safaanu baax nekku ci yow yiiw nekku ci yow doo dara apo yiw dong ngir doon xaritu yàlla nag nañu seeti kii yàlla yónni woon ci ñun di sunu yonent di seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu wax ñu ban yoon lañu war a jaare qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam izhad fi dunya yuhibuka allah wa izhad fi ma inda naasu yuhibuka naas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne dëddu li ci àdduna boo ko defee yàlla bëgg la te nga dëddu ci loxo nit ñi boo ko defee nit ñi bëgg la waa détournement des deniers publics corruption concussion vol à main armée agression loo lu ko waral ñàkk a dëddu li ci loxo nit ñi loolu moo lay yóbbu ci jëf lu xaraam te boo sàgganee dëkke ko ba def dikk nag ndax da nga dul sóoraale bésu réglé ba te nit ñi soo leen sonalee ci seen alal te warul nag jaaduwul ñu jéppi la te ki la jéppi du la mas a bëgg te bëggante bokk na ci li nga xam ni sunu borom subhaanahu wa taala loolu la ñuy doyee te sant nañu ko ngir ñu ubbi suñu yoonu aljana ndax kat laa tadxulul jannata hatta tuminu walan tuminu hatta tahabu du leen dugg aljana mukk te gëmu leen te du leen gëm mukk te soppantewu leen ab julit nag dafa war a bëgg yàlla dëgmal ko ci bàyyi lu mu teree te lépp ci loolu yem àdduna di jëf nag li mu santaane te lépp di njariñ ci àdduna ak ci àllaaxira moo tax ab julit fu mu mën a nekk na fàttaliku li seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam taqarraf ila allah fi rajai yaxrifaka fi shiddati yàlla subhaanahu wa taala soo ko yëgee ba ngay man bés boo nekkee ci jafe-jafe du la bàyyi bëggal nit mu nekk mu nekk ci jafe-jafe nga mën ko ci génne noo def génne ko ci te yàlla nag ku baax la am lu baax bëgg lu baax bëgg ku baax xala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha tayibu fala yaqbalu ila tayiban yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla ku baax la te du nangu lu dul lu baax sallallahu alayhi wa moo ñu woon baax xamal ñu mbëggeel suñu diggante ak suñu boroom moo tax ku jara topp la ci ay jàngaleem bu ñu bëggee njéggalu yàlla subhaanahu wa taala ci ki nga xam mi wax lii déglul yàlla subhaanahu wa taala du tàyyi ci wax waaye ñoo dëgër bopp du ñu dégg xaala allahu tabaraka wa taala qul in kuntum tuhibbuna allah yutabiuni yuhbibukum allah wa yaxfir lakum zunubakum wallahu gafuru rahim yàlla subhaanahu wa taala dafa wax yonente bi salallahu wa sallam ne ko yow muhammad salallahu alayhi wa wax leen bu fekkee bëgg ngeen yàlla topp leen sama yoon bu boobaa yàlla dina leen bëgg faral leen seeni i kii nag doon sàkku lu dul ngërëmu yàlla jiital pay yàlla pay yàlla ëllëg li ko ko may mooy dëddu àdduna ak ci bànneex ngir bañ fàtte sunu boroom ci lépp loo xam ne bëgg na ko ci ñun te war ci ñun dëddu àdduna day dellu ci dëddu lépp lu yàlla tere te nga tegu ci njug kon di nga dëddu carte ngir gaaw bari le am te sonn te sonnoo di dëggu njaaloo dina dëggu sàngara di nga dëddu rey nit ak yombal ji ci am waa carte Sénégal kan mooy carte loo nit ñi c'est l'État mooy carte loo nit ñi te aramal euh, diina tere ko moo moom jumtukaay yi moo koy jaay mooy encaissé ku ciy liggéey sax yaa ngi liggéey ci lu xaraam parce que yàlla da ko xaraamal innamal xamru wal maysir wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali sheytaan boobu lii di carte lii di sàngara lii ak eh, lii ñu samp ay jëfi seytaane la sangara moom xale yi lañ ko jagleel sax léegi Jakarta il y a quelques wax naa ko fii waaye ci autorisation la amee ndax ki koy defar xutba boobu après un mois après ñëw na seet si ma ànd ak nit ne ma maa ngi ñëw fii pour ñetti yëf benn bi pour njëggalu ñaareel bi pour expliquer la ñetteel bi pour sant la pour jéggalu mooy xam woon ne mu ngi ci école yi te samay doom di jàng école tolloog ñiy xalaat classe te bëgguma samay doom naan te yaakaaruma sax dinañ naan parce que yaruma leen ci loolu maa koy jéggalu jullit yi maa koy jéggalu ñëpp ñaareel bi mu ne dama lay expliquer nag lu tax ma dugg ci ndax en 2009. dafa am ay indien yu fi ñëw bëgg a defar carte euh, sàngara boobu petite dose yooyu ñu jox ko autorisation muy defar ñoom ñu daan defar dose yu mag yi jaayatuñu ñu ne waaw ñun jaayatuñu lu tax ñu ne yu ndaw yi mais ci lu mu def ba am lii mu ne autorisation la am ñu ne ñu dem uti autorisation ñu may ñu ko ñu koy defar di ko jaay waaye ñu sommes autorisés par l'État en 2009 kon sàngara bu ndaw bii ñuy jooy dañ ko autorisé waaye moom mu ne ma moom ci boppam il y a deux semaines conseil des ministres del na dogal ne capacité yu ndaw yooyu bu ko kenn defarati waaye capacité bi ci gën tuuti mooy cinquante centilitres te xale yi mënuñu koo jënd waaw loolu daal mooy ñaareel bi mais ñetteel bi mooy maa ngi lay sant bi ma jógee ci lii ndax sama usine dama ko tëj jaay machine yëpp nit Dakar dawlin da ciy defar léegi ndax bëggatuma ko laal fenn moom mu ngi ci yeneen affaire keroog laa ko gëj gis ba il y a 6 mois yónnee ma ni téléphoné ma mais ca laa ko gëj gis ca laa ko gëj a dégg nañ ci def ndànk waaye bu conseil des ministres ne sàngara bi bu mu amati mais ki koy defar kondi de mais il doit sévir dafa war a dal ci kawam dafa war a dal ci kawam ak lu mu ci ko lu ci ko mën a fekk te bu dalee ci kawam nit ñi jàpp ci parce que nit ñi neexu leen waaw yàlla ne Sankara carte ak yi ñu samp yi jëfi seytaane la waaye lii di Jakarta lu ñu autorisé la woon la alal nag bànneex iñaan tax na rey nit ba àgg ci rendi ko yomb lool te yàlla de bañ na ko de mais àdduna ci moom wax ni ku rey nit nañu ko rey xaala allahu tabaraka wa taala wa katabna alayhim fiha anna nafsa bi nafsi lii waroon ak li xew yàlla ne bu ñu reyee nit te tey ko nañ ko rey mais ak li xew ndax waroowul lii waroon ak li xew ku rey nit ci tayeef nañu ko rey mujjul nag ci reyal ku la neex foofu la mujj reyal ku la neex dara du la ci fekk dinañu ñoŋal sa bakkan nga wëlbatiku siif jigéen rey ko dajji boutique rey boroom meredit rey ko ngeen jàmmarloo ci politique ñu rey la sàcc sa alal rey la dogale nit ci jël alalam rey ko xale ñu rendi ko jël ay cëram tëkku nit ci kanamu mbooloo ne ko dinaa la rey nga rey ko ba pare ne waxoon naa ko de ah, xam na dara du ko ci fekk waaye rey nag ci posséder nit de manière sournoise on na assassine les gens par le poison rey ji fosone nit kon lu yéeme la nag waaye ñu ngi ñu ngi koy jàngale fosone nit ñu ngi koy jàngale à travers des pièces de théâtre à la télévision qui est un puissant médium pour atteindre sa cible par la distraction mais attention attention car ce message est pernicieux et très dangereux attention nañu bàyyi yooyu waaye ki rey dañu ko jàppale ba dara du ko ci fekk balaa nga am lu la metti xaw ma diine la ñoo xaw ma lan droit de l'homme nga xam ne amul yàlla amul yonent te seen téere déclaration universelle des droits de l'homme rek la te c'est une copie c'est une parfaite copie de la déclaration de la loge TLM masonique euh, bu ñu célébrer le centenaire de la révolution française c'est la même chose waaw kooku nag ñu bëgg ko gën jël gënale ko sunu téere yàlla bii waaye te kii di ko di xeex bay dàq peine gis nga yéen ñëpp gis ngeen ko da ngay laaj nit ci télévision mu ne rey nit baaxul waaye peine de moo ko yées te kat tuddewoo ab julit kii moom xamul ni murtat na boo yàgg nag ndax wedd yi waxu yàlla te ku wedd yi yàqu waxu yàlla di ab yéeféer yàlla daal lu mu waxoon jogu fii wa katabna alayhim bi wal فيها عن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح الإساس yàlla ne yàlla ne waral naa ci seen kaw ne ku rey bakkante tey ko nañu ko rey ku fëq bët nañu fëq bëtam ku ba dagg nopp nañu dagg noppam ku dagg leneen nañ ko def ku gaañ nit nañ ko fay lu toll na mu gaañ waaw sunu borom wax lii ba pare mais ay nit di jaamu yàlla dem assemblée ne lii du fi amee mais en 2004 la peine de mort a été supprimée lii la fi jóge te jóge na fi te muy waxu yàlla yéen député yi xanaa du réew mii nga xam ne ci la ñuy rey nit ñi ngeen fa toogal ndax du ngeen wuutu nit ñi ci proposition de loi bu indi peine de jàmmal leen waaye yow gouvernement nga xam ni boo bu fi nekk ñu ne kon doo fi nekk nit ñi la fa teg. yow ndax da ngaa mën def projet de loi bu indiwaat peine de mort waa ndax da ngeen ko sañul walla da ngeen ëpp yàlla yërmande li Seydi Aj Abdoul Aziz Dabakh daan wax ndax da ngeen ëpp yàlla yërmande lu rëy ngi noonu xajul ci benn waxtaan da ngeen ëpp yàlla yërmande lu rëy noonu ndax da ngeen ëpp yàlla yërmande wala da ngeen a gën a déggal droit de l'homme bàyyi yàlla waaye yii yëpp di xew ak yi loi yu dëppoowul ak benn diine nag ngir rek jox nit liberté ak sañ-sañu def lu ko neex bu boobaa ndax dinañu waa mën a wax nii réew mii di Sénégal réewu diine la ndax mën nañ ko wax ndax réewu Sénégal réewu diine la gis nga Sénégal du réewu diine Sénégal gi du réewu diine binduñu ko fenn Sénégal réewu diine binduñu ko fenn waaye réew la boo xam ne ay nitu diine yuy jëfe seen diine moo fi nekk ak ñoo xam ne diine lañ nekk di sàggane seen diine ñoo ko dëkkee li wóor mooy bind nañu ni senegal du réew diine le senegal est une république laïque te loolu lañu ñu gëm ba mu nekk sunu doxalin waaye bu ko tàyyee déglu moom subhaanahu wa taala xaalallahu tabaraka wa wa man yabtaxi xayra islaama diinan falan yuqbal minhu wa huwa fi laaxirati min alxaasiriin yàlla subhaanahu wa taala ne képp ku nangu jël doxalin bu dul islaam loo defati soxlawu ma lii du samay wax te ëllëg bés penc ba boo dekkee di nga bokk ci woy perte ñi waaye sunu borom daf cee yemul ndax def na dénkaane jëmale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñi ak ñi ko topp may ko nopp rek yow mi nga xam ne yàggam gëm lay cité قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا تجدوا في أنفسهم حرجا مما عليت ويسلموا تسليما yàlla ne maa ngi giñ sama bopp nii ñi la wër yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du nu doon mukk ay julit lu dul dañuy jël islaam bi yàlla wu jox lu la yàlla jox di ko attewoo te lépp lu mu dogal ci atte ba mu doon loo xam ne dañ koy nangu mu neex ci seen xol yi te duñ ko delloo waaw laïcité mi dox moom moo moo fi dàq diine waaye laïcité mi atte diine sax mooy lan moom mi dàq atte diine moom mooy lan moom ci boppam gis nga laïcité fu mu sosoo jaar na fa fekk na fa diine dàq ko fa ngir mu taxaw bay firndeel doxalin dafa dàq église catholique fële ca France en 1789 teg tëralinam jël diine ber ñu teg ci ñaari at 1791 il faut un peu d'histoire parce que c'est l'histoire qui éclaire l'avenir 1791 la constitution française instaure la liberté de culte ngir nit am mat sañ-sañ jëfe diineem nu mu ko soobee mais cent ans presque après 1881 1882 les lois Jules Ferry instaurent l'éducation gratuite laïque et obligatoire Mais en 1905, il y a la loi de séparation de l'Église et de la République qui ne reconnaît nii na salarie ni ne subventionne le culte laïcité baat bii ak principe bi mu ngi dugg sax ci constitution française en 1946 yàggul ci préambule bi ci muxaddima ba fa la nekk laïcité mooy kii bundu xataal ki bëgg a ak yàlla jàmm ko dund diineem te duñu ko ci soppil dara ci dundinam moo tax ci France ñu bëgg nuru mi nga xam moom lañu ñu bëggum nuru ci mbiru doxalin ak ci ay loi ñu tere fa ku muuru dem école la loi du 15 mars 2004 fii ci sunu réew mii nag di Sénégal ay jullit dëkke ko école jog ne ku fi muuru ma dàq la ndax li waroowul ak liberté de culte ba ñu waxoon ci kaw jëfe sa diine nu mu la laaj nu ko laaje fexe leen nag ba bañ a bokk ci lii ba ba ba fexe leen ba bañ ba bëgg ma bañ a nekk loi ndax loi yàlla bii ci mbir mi wax na ci lu leer déglul yàlla yaa ayuha nabi huli azwajika wa banatika wa nisaa'il mu'minin yudniina alayhinna min jalaabihinna dalika adnaa an taxrafna fala yudayna wa kaana allahu gafuuran rahima yàlla ne hee yow seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxal say soxna ak say doom yu jigéen ak jigéen yu woy gëm yi nañuy wàcc ci seen kaw seen muuraay looloo gën a jigee ñu naan leen xam ñu ñu man leen a xàmmee te bañ leen a lor te yàlla subhaanahu wa taala jégalaakoon la jaglewaakoon la fii nag amul benn loi bu tere nuru muuru dem école amul bu amal sax jaaduwul ci jullit bu jigéen ab école di ko tere jullit bu fay jànge non gis nga bu leen dugg ci lii ndax Sénégal c'est un pays de tolérance religieuse yàgg na fi avant la constitution sénégalaise laïcité 1963 la dugg ci constitution bi waa avant ndax ñun ak ñi nga xam bokkuñu diine dañoo nekkuloon ci jàmm ndax dañoo nekkuloon ci jàmm te suñuy mbokk la ñu kayet ku nekk fu toog fii am nga ci ay xarit am nga ci ay mbokk man tout à l'heure en venant rek il y a des dizaines de chrétiens qui m'ont écrit des messages d'encouragement tout à rek ay mbokk lañu bu ñu dugg ci yooyu fii nag amul loi tere nuuru muuru dem école bu amoon sax nag jaaduwul ci jullit bu jigéen ab école daal di ko tere jullit bu fay jànge non loolu moom nañ ko sori xam nga dañu wax dialogue islamo-chrétien mais le dialogue islamo-chrétien c'est une solution bu fekkoon problème am na mais le problème n'existe pas xam nga tey jii lu ñu war a wax dialogue islamo islaam ñun jullit yi ñun ñoo am problème fii nag amul loi bu teree nuur dem muuru dem école bu amoon sax nag jaaduwul ci jullit bu jigéen ab école di ko teree jullit bu fay jànge bu ñu dugg ci loolu nag li ma sol góor ga dafa nii li ma sol moo tax moo ma tax a julli li ma sol moo ma tere julli li ma sol tax maa julli moo tax ma nekk ab jullit xam nga nit ci li mu sol moo ko tax a nekk moo ko tax a julli nga solu ñu ne allahu akbar nga naka sa jàpp nga ni allahu akbar kabar li nga solo tax da sol lu yiw lu te waaye allahu akbar nga ne abal leen ma sër amaleen muuraay li nga sol moo la tere julli te julli moo tax ñu lay wax jullit waaw même bu doon laïcité ñu ne bu leen fi muuru keneen amul droit takk fa croix ndax moom signe distinctif de religiosité warul feeñ ci fenn bu fekkee loolu la gis nga laïcité ci ñenn rek la am waaw lu laïcité di tekki ci wolof ci wolof lu laïcité di tekki ci pulaar lan lay tekki ci séeréer lan lay tekki ci anglais lan ci allemand lan lay tekki ci espagnol lan lay tekki amul firi ci anglais lan lay tekki waaye Angleterre moom yàlla lu ñu jiital te terewul na am ay loi nag bañ nañu ko ba saay ñu xëyee dañuy julli ci yàlla ñaan ci yàlla God seve the queen di ñaanal buur bi yàlla jàmmal ko sowe ko iir ko waaye ku ñaanal ki la jiite mooy ñaanal nga réew ma saa yu ñu xëyee def ko mooy seen hymne God save the queen nga dem États-Unis jii ñu jiital yàlla ci mbir yi président muy wàcc ci téere lay wàcc waaye li gën a yéeme mooy seen dollar bi nga xam ne ñoo ko ëppale ñëpp dàq ko ut ñëpp dàq ko seytu ñëpp dàq ko maye dàq ko liggéey dàq ko euh, sànq sàcc ka sax ñoo koy dàq def ndax le plus grand voleur Madoff c'est américain la mu làq kenn xamul lu mu toll lépp ñuy def ci xaalis ñoo ko dàq waaye terewul ca biir ba ñu gindi bind ci in God we trust ñun yàlla la ñu gëm waaye ñun nag kan la ñu gëm ñun yàlla la ñu gëm yàlla na ku ko gëm yaakaar ko ku ko gëm wóolu ko dont na am na ay loi taxul nag ñu bedd yàlla waaye ci arab yi baat bii lan lay firi al ilmaniyatu amul cosaan ci dictionnaire arab loolu ci dictionnaire yu mujj yu bees yi bu mel ni al muhajimaatu wa arabiyati xadisatu foofu moom mu ngoy firee ni mooy lu bokkul ci église te bokkul ci benn diine ci beneen dictionnaire almuhjamul wasiitu muy dictionnaire bu dëgg diggu doomu moom it mu ngi xamle ni baatu laïcité ne mooy képp ku am xam-xam bu dul xam-xamu diine bàyyee ko ci yàlla boo demee à la page 624 tome 2 di nga ko fa fekk waaye ci primu classique nag li namm ci al ilmaaniyatu mooy ala diiniya te mooy lépp lu amul jokkoo ak diine docteur Amadou Ben Ahmed mu ngi wax ne noonu islam yi ba ñu bëggee nangu dugal ba ñu bëggee dugal laïcité ci monde islamique dañoo nax jullit yi ndax xam nañu ne mënuñoo ne islam te ñu ko fa jëlee ak ay gànnaay ñu ne kon nañu fexee jël islaam ci seen doxalin ak ci seen dundin ci yoon boo xam ne bi duñu ko sax yëg ba ñu mën a nekk ay jullit yoo xam ne dañuy jëfandikoo seen diine loolu moom feeñ na léegi ñu ne kan lañu tuddee ñu ne kon nañu ko tudde al ilmaniyatu ba nga xam ne jullit bu ko dégg rek gis ci baatu ilm te loolu mooy xam-xam te benn jullit du ko bañ xam-xam kenn ku ko bañ ba buy jariñ ak bu du jariñ amul kenn kuy bañ xam-xam ñi gàttoon ci xel ci ñoom daal di nangu dem ba di ko jëfandikoo dugal ko ci seeni charte réew sax moo tax lay laïcité positive ak négative dafa amul yépp day lor fii kat da ngay dégg sax nitu diine mu ne xam nga bi réewu layig la te yow alxuraan nekk sa wet nga koy jàng bu nekk bëccëg dàq ay aayaam yow nga ni kii lii la mais non dañuy font rek moo tax laïcité positive négative amul ndax fu mu nekk dàq na fa diine xoolal Turquie c'est un pays musulman waaye kan la fa laïcité dàq lampiir ottoman te l'empire ottoman moo dominé woon am àdduna euh, euh, bi du cinquième au quinzième siècle au quatorzième siècle l'empire ottoman moo teg tànk ci àdduna bi mais ñoom la fa lay si dindi lan ce sont les francs ñoo xeex di ko xeex pendant longtemps ba jëlee ko fa Moustapha Kamal ku ñëw daal di tëral laïcité en 1923 ñoom seen constitution sax la jëkk jëkk na constitution française de 23 ans France en 1946 ñoom depuis 1923. waaw comme dëkk bi yëpp ay jullit lañu nga bëgg faa dugal loolu day jafe moo tax ñu jàppale diine jàppale bu weesu euh, sa yaakaar en Turquie il y a cinq 500 mosquées les 72 500 sont à la charge de l'État waaw fii ñun quelle la mosquée qui à la charge de l'État ñun fii on paye le courant et l'électricité et dans toutes les mosquées de Thiès et du Sénégal ils payent le courant et l'électricité ñoom ils participent sax par des taxes au de l'État ndax suñu sunu facture yi dafa am TVA fu mu jëm ci ñoom ana jàppale bi ñu jàppale jàkk ak juma waaye fii ñu toll nag fële ci Turquie la fa nekk ka fa nekk tey lu tax bëggul euh, Union européenne bëgg dindi na ci mbir ma moo tax ñu koy liberté de la presse liberté nangam liberté nangam ah mais Turquie du gaaw dugg Union européenne tant que ñu ngi ci dynamique bu euh, euh, islam gis nga réew bu mu mën a doon booy defal diine wala nitu diine yaa xam ci ay tabax la wala xaalis wala ci yombalu ko ay tukki wala ci neexal boo koy def ba mu mën laa xam ba mu am fu mu mën sukkandikoo ci yow wëlbatiku di xeex diine yow nga wëlbatiku ci suuf te yaa ngi dimbal nitu diine nee di wëlbatiku ci suuf di xeex diine di soppi ay loi mu ne miig yi nga tabax yooyu lu jar a toj la kon xaalis boobu lu jar a gedd la lépp lu ñu lay jox pour lool lu jar a gedd la ndax lan ngir baatu yàlla subhaanahu wa taxaw gedd ko taxawal baatu yàlla subhanahu wa taala allahu akbar da nga koy gedd taxawal baatu yàlla ndax yooyu ay xoyu xoyu àdduna rek la mais yàlla ko ëpp doole foofu alquran ko ëpp doole foofu kenn warul soppi benn aaya euh, te te te nit ñi nekk fii di ko gëm te ñaata aaya lañ fi soppi boo ko doon lim fii loi yi sappi ay aaya kenn xamul nu muy toll kenn xamul nu muy toll ci sëy ci miraas ci nangam ci nangam ci nangam soppi nañu ba nga xam ni téere bi nga koy jàng rek mais kenn jëfewu ko fii ci réew mi dangay taxawal baatu yàlla mu dangay ngay taxaw ba ba gedd lépp ndax baatu yàlla taxaw diine ñoŋ diine nag bëgg na diisoo diine bëgg na diisoo wa shaawirhum fil amri wa iza azamta wa tawakkal ala allah inna allaha yuhibbul mutawakkilin na ngeen diisoo seen mbir waaye bu leen diisoo ba tëkk ba taxaw demal bul geesoot sa ginnaaw jëfal rek diine nag bëgg na diisoo bëgg na waxtaan ba juboo mu mel ni dialogue national lañu woote waaye daal lépp luy sa suñu diine bu mu fa génne lépp luy naxasa suñu diine bu mu fa génnee te ñu wóolante te benn naxe-naxe bañ ci am waaye daal li ñuy wax train de vie de l'État moom dialogue boobu war na cee wax bu baax a baax a baax xam nga quand on déclare qu'il y a 2000 véhicules par an qui sont importés pour l'État milliards mais non mbete kuy jënd avion sax waaw yow entreprise nationale yi nga yor leen bor yu nekk at mu ne nga changé ay nit oto boo xam ne bii kenn xamul mu doon mais bàyyi benn at sax joxe ñi ñu amel bor enseignants yi di daw depuis longtemps ci seen i rappel ak yu kenn xamul waaye doo bàyyi oto yi te fay leen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen gis nga réew li waaj doon wax dañ koy dañ koy xaw ma lan dañ koy kenn du ko paacoo mais dañ koy dañ koy pencoo pencoo ko nag mooy ku nekk nga jox ko ak xam mais ñii am ba jeexal li ñuy am mënuñu ci dara te milliards yi lan lañ koy doyee lan. yow bu ñu lay suul perkaal le plus euh, moo gën a yomb ci marché bi laa wax lañ lay booleel alal ji ñu bàyyi ko fii quelquefois sax dootoo ci jot parce que nëbb nga ko foo xam ne fii loxo yeggu fa tànk yeggu fa dootoo ci jot waaw loolu pour lan loolu ndax du ñaan te seen nekk nii soxla oh waaw yooyu mais xool suñu sapeur pompier yi Thiès. benn jumtukaay amuñu oto yu màgget yu fënëx moo fi nekk moom lay wax parce que maa doog moom dëkk ñu ngi nii à 200 mètres depuis combien d'années fii R plus 2 bu fi doon tàkk kenn du ko fay amuñu échelle bu dem ba ci kaw wala ñooñu bokkuñu ci yi te ñooñ ñun lañ fi nekkal seen mission rey na seen jumtukaay néew na waa dialogue ngir ran sax waaye li ñuy waxtaanee lépp assises nationales yi wax na ko mënoon naa nekk document de base ñu amaade seigneurie bii ñu def xaalis bu baree baree bari ah wax la muy wax ba pare tënk ko ñu sànni ci poubelle bi commencé di wootee leneen defaat ci alal waaye ñun alal ji c'est pour nous dañ koy def foo xam ne fii day jariñ waaye yooyu dañoo mën doon nekk ay document de base ñu amandé ko ndax alal ji ñoom dialogue politique moom même chose ndax li ñu juboo woon la ñu xëy dajji xiiroo bi ak ngaayo bi ne fi kur waaye kuñ ci woon nag nanga teg taggaate fële na nga teg gërëmaate fële nanga teg sant fële ndax ci la woo ndimbalay ut pour nga wax ko dëgg solution lay ut waaye nga ñëw di taggaate gërëmaate déedéet yow li ñu lay doyee yow da nga koo xamul kon xamoo yow li xew waroo fàtteewu te ñi kilifa boo xam ne bi day daloo buur wala buur di ko daloo nga bëgg la ca la mu yore nga bëgg ca la mu yore faw nga wax ko lu ko neex donte sàkkawu ko di nga ko neexal donte nekku ci dëgg mbaa sax mu nekk ci dëgg mu am yërmande maa mu ñàkk yërmande mu jub wala mu jubadi nit ku mel nii nag fan nga koy boole doo ko boole ci lu lu ñuy doyee rek nit ku matadi la gis nga alalu àdduna yii yóbbu na ñu bari ba ñu jaay seen diine du waragulu ku bëgg yàlla jafal la te moom yàlla subhaanahu ku mu yafal da suur ci mbon mbonu àdduna yi bu boobaa di nga niin ci xéewalam yi boo fi jógee sax nag niin ba des ba niinaay ba dafay des askan di ci jëfandikoo jaami yàlla di fi jëfandikoo ba àdduna yi di tukki waaye boo doyee dee ba buur yafal la ba nga suur xam nga nu muy def day wëlbati ko butti la ndax lan butti la ndax day summi sa daraja wékki sa kiiraay nëbb sa fayda rocc ci cofeelu nit ñi gëm yàlla ci yow te loolu adduna jaru ko alal jaru ko bëgg a siiw jaru ko amtul jaru ko boo bëggee noppalu da ngay da jël tëral ñu islaam jëfe ko donte doo jullit sax nag man na laa dimbali ndax day tëralin bu màndu waaye déglul euh, Bernard Disso Bernard ci waxam ji yu xariru anna silaa al aalimi bil islaami wa yaqulu muqaatiban qawmahu iza lam tattaxiz islaama diinan fa taxizuhu shariatan wa distuuran inna shariata la kafilatul bi sahaadati al bashari on peut considérer l'islam comme étant le système qui peut construire un état de droit, rendre le monde juste où personne ne sera lésé, où chacun aura la rétribution qu'il mérite. Même si on ne le prend pas comme religion, il est impératif d'adopter sa charia, qui est la seule alternative à un monde de justice et de valeur. mooy li ma defar adduna bi mooy islam donte nag du jullit muy wax ak ay ñoñom ne islam mooy indi dëgg ak dëggal mbaax mu teg ci bu ñu ko jàppul sax nag comme diine nañu ko jàppee yoon woo xam ne moom lañ jaare ak lu ñu mën a lu ñu war a attewoo ndax charia islam kat dafa matale texe doomu aadama ci jikko yu njub ci mbaax ak ci lépp islaam moo ñu amal njariñ ndax li mu ñu dencal ëllëg muy àdduna lu néew la lu gàtt la moom yent bi sallallahu alayhi wa sallam misaal na ko ci misaal mu doy waar sallallahu alayhi ne nekkuma ci àdduna bi lu dul mel ni ab tukkikat bu wàcc waga gawaram di noppalu ci suufu garab ga diir ba ma fa def mooy sama nekk ci kaw suuf ngir xamal la rekk ni dund àdduna bi lu néew la lu gàtt la kon nga dëddu àdduna bi ngir ëllëg mi sax dàkk ña demoon yàgg na léegi mais ñu ngi tëdd nelaw ba tey kenn yeewagu leen kenn dellu si waatu fii kon gëm yàlla wóolu ko def lu baax xañ sa bopp ngir ko tane bokk na ci joxe li nga gën a bëgg ku ko bëgg te amu ko ragal yàlla di ko jaamu ragal yàlla di ko jaamu ragal yàlla di ko jaamu gis nga nañu ragal yàlla nañu ragal yàlla ci suñuy mbir nañu ragal yàlla ci li ñuy def nañu ragal yàlla ci fi ñuy teg suñu tànk dangay ragal yàlla di ko jaamu ni mu ko bëggee doyloo ay mayam bañ a jënd yàlla ak kenn walla lenn yàlla nañu yàlla teg ci wetam te ñu bañ ko sori ñu dellu nag di leen sant di leen ziyaara di leen baalu ax di leen ndokkeel di ñaan yàlla bu mu nekk suñu mujj korité yal nañu yàlla may wér wérle sutura ak teraanga yal nañu yàlla benn le jullit yi yal na yàlla benn le jullit yi benn le kàddu jullit yi kàddu islaam yal na ko yàlla gën a yëkkati woy feebar yi yàlla na leen yàlla saafaraal seen feebar dimbali docteur yi ci xam-xam ak jumtukaay ak xam ak pexe boo xam ne bii dañu mën a dimbali malaat yi nekk ci ñoom waaye nag ak yërmande ak gaaw ca la ñuy def way daw yi yal leen yàlla teeroo njéggal ak yërmande